bonsoir chers téléspectateurs et chers abonnés de El Vision Média comme niñ leen ko waxee saa su Vision Média day xool leen di bëggal mu koy def boo ma gisee fi ma nekk rek defoon nañ ko daaw fekkee déwén dañuy baaxantal daaw seen vacances te waaye ren El Vision Média andil leen émission 100 pour 100 vacances ñu koy wax les couleurs de l'été les couleurs de l'été nag mën na nekk Awa Alain mën na nekk keneen ak keneen à chaque fois fi ñu leen di demal lieu bi leen di demal lieu bi nga xamante ne mooy féexlukaay bi leen demal leen andil sénégalais yi ni ñuy seen vacances ak ñi nga xamante ne ñooy touristes yi ci dëkk bi tey nag ñu ngi fi nga xamante ni mooy Malibu di plage boo xamante ni ku ko xamul dégg nga ko mu nekk fii ci Géejawaay ma ànd ak Saliou sama cameraman bu ñaawul bi Eva Chew féelu ko ñu fa siyee leen andil won leen ambiance bi am fii Malibu ak sama gars yi nan la ñuy dundee seeni vacances fii lay amee ci El Vision Média votre toute nouvelle émission les couleurs de l'été Saliou damaa bëgg nga topp ma ma won la xale yi nan la ñuy dundee seen vacances fii lay amee Mm, mm-hmm. hey, nah, Kala nyo pakas dem you ando boku lango Buken sed na nyap ando boku tango Nyo ando fakas jakas tamati ndiga ibole jipange Mene fechal baken lala Fechabu

dañoo paree nu ne ñëw nag daal di jàkkaarloo géej gi di jël brise de mer bi nànk-nànk ma taxaw koo xam ne moom dama ko fekk mu taxaw moom rek daal di savourer mer bi noo tudd. man Ndeye Khady laa tudd. Ndeye Khady yow sa yow li moo tax nga rafet sama sama umpaañ Ndeye Khady la tudd. nuyu naa la. ah maa ngi lay fay. di la sant. ñu fekk la tey fii ci plage bi yow moom dangaa ñëw def la classe jàkkaarloo géej gi di ko savourer kon nii ngay dundee say vacances. waaw nii rek laa koy dundee. xam nga chaque dimanche dañuy génn ñëw féexal suñu xool ñu si place bi xam nga jël air soulager suñu bopp. man mhm. sama gars yi yaa ma nii laa koy dundee chaque dimanche daal maa ngi fii toog jàpp sama ñàmbur naan ataaye ànd ak samay xarit ak samay am di jàmm. ànd ak say xarit ànd ak say am di jàmm tey milieu yi nga xam ni doomu aadama vacance mën na jot mu dem fa bari na pourquoi nga choisir plage. waaw parce que tey xam nga brise bi da lay dugg. nga changé air xam nga lu dindi stress. nga toog waxtaan jàmm jàmm ak salaam daal dafa neex daal. Mhm. waaw. parce que tey jii mën nga toog seen kër. Mhm. yor fa benn stress. Mhm. tey soo ñëwee wa géej gi ci Malibu. di nga fa dundee dundee bu dundin bu neex. daa teg seen caan daa teg seen seen seen yu baax. di préparer lii di def li nga di féexlu ci plage bi euh, li ma la bëggoon laaj ci leneen mooy est-ce que plage Malibu ba nga nekk nii plage autorisée la. non c'est pas autorisé nag pour baignade quoi. Mm-hmm. waaw parce que boo xoolee affiché nañ ko ci tableau yi. Mm-hmm. parce que wóorul daal wóorul pour sangu man boog sama wàllu bopp man du fi sangu du digal ko fii sangu mm-hmm. waaw. plage bi nga nekk c'est autorisé ou bien c'est pas autorisé. non c'est autorisé kay. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. di ci sangu yaag say xarit non du du ma sangu nag nekkul n'importe place day sangoo quoi yaa ma gën a xam te man leen rek mooma ci kii comme ça xale yi xale yi dañoo xamul nu ñuy dundee géej gi waaye normal ak ci ni mu neexee ndax tey man dama fi daan ñëw di sangu mel soo ñëwee da ngay xam ne nii sangu da ngay ba géej gi mel na nen nga ñëw sangu mm. ndax instant yi moom li fi li muy rey ci ay doomu aadama bari na mm. parce que dimanche bi passé Sidi moo fi doon tëgg mm. ñëw nañ fi waaye ba mu ñëwee dafa am koo xam ne bag la doon def dafa def bag ba pare jugee seen kër na yaayam maa ngi dem géej ba mu ñëwee fii dafa def dafa lap ñu ma àndal tamit xam nga ay ay responsable lañ ay magum jëmm lañu parce que booy seet ñëpp ñu fi toog ñëpp am jabar mais dañoo bàyyi seen jabar yi xam nga ñëw toog fii di waxtaan changer idée mhm. waaw loolu rek moo ñu fi mais pas pour ay sangu mhm. wala pour def leneen mhm. loolu rek moo ñu fi indi toog waxtaan changer air dafa baax daal waaw buñ sañoon tey ji géej gi am ñoo xam ne ni dinañ mën a aar xale yi wax leen fi ñuy yem ak loolu ndax tey ji ñun moo gën ci ñun moo ñu dàqal fuuf parce que ay doomi doomi Sénégal la ñoo fi nekk kon nag war nañu ñoo mën a jàppale ci géej gi parce que moom rek lañ am ndax tey ji xale yi li ñuy jóge fii di dem ba ay ngor yooyu noonu placé ne ni tey mën nañ koo am fii mm-hmm. ndax ñun fii mooy suñu lépp mm-hmm. ñun géejawaay mooy suñu base mm-hmm. kon nag buñ sañoon ñu sàmmal ñu suñu géej gi defal ñu ci lu baax mën aaral ñu xale yi parce que ñun tey ji mënoon nañoo ñëw sangu waaye xam na ne tey wóorul suñ duggee sangu mën nañu am problème dañuy ñëw taxaw rek di xool pour seral suñu xol ndax ñun baal rek lañ am moom la ñuy tiitaroo waaw looy wax waa Elvision Média ak émission bi ñu leen andil les couleurs de l'été. waaw waa Elvision Média li ma wax mooy li ñuy def nii initiative bu rafet la. Mhm. parce que tey jii xam nga xel lu doy daal. Mhm. parce que tey jii ñun ñu ne bu ñu toogee di wax. mën nañu wax ne askan wi la ñuy dégg. Mhm. mais lii nii dafay waral askan wi la ñuy dégg tey. waaw. ayca kon message bi nga lancé am na important trop trop trop trop parce que def nga sensibiliser nga xale yi nga xam ne ñooy ñëw ci géej gi fii di sangu ndax Malibu de plage yi non autorisé la. no non de plage. ndax parce que instant gis nga plage lañ ko bëgg a def. Mm. ta yaa ngi gis ñi xale yi. Mm. ñoom ñi ngi ñëw di fi sangu nit ñi mm. ñu ngi fiy bali. siir ngi fi ñëw di fi tëgg. ñu ñëw di seetaan si ñëpp am na ñoo xam ne dañ fay ñëw pour yàq. am na ñu fi ñëw pour sara seen xol. Saliou gannaaw ba ma jugee nag ci ñi nga xamante ni ñoo ñëw féexal si seen xol damaa ñëw na fekk ñoo xamante ni si moom ni ma dalalee dafa neex ndax damaa ñëw mu jox ma loo xam ne dafa neex gisoo saali ma koy sàq mi nii muy neex. Hmm? kon su ma fi ma taxaw kon jaru ma leen wax li muy jaay macha allah muy defar ay boissons fruitées euh, fii ci plage bi nuy naa la. fay naa la bu baax. noo tudd sëñ bi. Amadou Ndiaye. ah Amadou man avant may wax dama wax ci teranga gi ma jox li ma jox ni ya koy jaay wala wa ma koy jaay mom ya koy jaay yu neex yi ni yu saf sap yi kat yu saf sap yi ma koy jaay ma koy defar ay ca noy dundé vacances yi fi ni ci Malibu nga ñew fekk la nga tek sa place bi dañ ñu fi nek di ci gis suñu bop nank nank ndax geej gi yaatu na mhm. waye yalla moy jaay mhm. waye ñu ngi ci sant suñu ya, ñu ngi sant yalla bu baaxa baax mhm, ndax li place bi daal bu ñu ko habillé ni suñu bopp lañ ko defaral. Mhm. parce que banlieue la te place publique la. Mhm. nit ñi dañuy ñëw féexal seen xool mhm. ku ci nekk li nga bëgg rek. mu ngi fi si géej gi. te ku ci nekk rek yaakaar naa mu ngi ci gis boppam yoo xamante ni vacance ba vacance nit ñi dinañ ci gis seen bopp lu bare bëri. waaye li ñu met ci place bi. mooy policiers yi. des fois ñooy arrêté clients yi. di leen safoo wala di jàpp seen scooter. te ñun ñoo na ñuy liggéey ndax client bu ñëwul jaaykat mënut a jaral. loolu moo ñu metti na ñun lool. ñoom lan lañu ñu def ba policier yi di leen interpeller. non amuñu parking. Mm-hmm. parking la ñu waroon am. Mm-hmm. ku ci jéggi loi parking bi ñu soog la safa mbaa ñu alamaan la. Mm-hmm. ñoo xam ne da ngaa jéggi waaye comme amoo parking ñoom fu ñu mën a droit la ñuy droit pour mu wàcc client. mais wàcc client boo ko bëgg a def ba pare di leen xañ seen jàmm. pour place bi amati ni dootul mën. te jaaykat yi tamit client yi leen fi tax a toog. bi ci desaat bi leen gën a mooy géej gi am sécurité. am ay nageur parce que ñu fay dee bari nañ torop ndax ba bu commencé ak léegi am na quatre personnes yu dee. Mhm. te yooyu buñ ci jëloon matukaay yaakaar naa war nañ mën a gën a yomb. Mhm. mais nit ñi nga xamante ne ñu ngi fiy ñàkk seen bakkan est-ce que ñoom xam nañ ni fii plage non autorisée la parce que ban bañ na ba dañ koo bind fee plage bi du pour sangu. waaw plage bi du pour sangu waaye nit ki moom bu génnee tàngoor ñëw këram. Mhm. yaakaar naa bu toogee war na mën a dem sangu pour féexal xolam pour génnaat bakkan yàllaa ko yor mm-hmm. ni sàkkul boppam ngir bëgg a dem di xaruji mm-hmm. yaakaar naa ne ku bàyyi jàmm sa kër ñëw fi pour féexal mm-hmm. boo duggee fi jëloo intention pour xaru da nga jël intention pour génne tàngaay bi sa yaram pour nga toog soulager génn lu naqari yooyu mm. dund bànneex pour mën a delluwaat say njaboot mm. loolu moo ñu fi indi ma tamit loolu moo fi indi askan bi waaw kon yow yaa ngi ni nii ak say ak say jus locaux yi nga defal nii macha allah yaa ngi ciy gis sa bopp waaw maa ngi koy fulaale de di ko fabere waale moom di si mm. gis sam bopp bu baax non nag xoolal bàyyi man tax man jaaykatu Sénégal man boo waxee mu naan maa ngi ciy sant yàlla yéen ngi ciy lekk xaalis macha plage baa ngi nii fees ak nit xale yi di ñëw fii di rang waxal waxal téléspectateurs yi neel mu ngi jar ah duma ko wax nag waaye may daal maa ngi ci gis sam bopp ndax jaay yàllaay jaay waaye daal ki ci nekk loo fi teg moom bu fi client ay jaare moom di nga ci gis sa bopp bu baax a baax. Ah. waaw ñu ngi ci sant yàlla bu baax nag client yaa ngi ñëw. Mm. ñu ngi sant yàlla. macha allah macha allah ñu jaajëfal bu baax a baax a baax mais li amoon sànq bu ñëwaatee du ko yàq de. waaw du ko yàq de ndax baax na de. ah loolu dafa neex. torop sax ah. neex neex. ma jox ki Saliou ak Ama bi ma àndal. waaw ah, loolu dana ma neex. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax. Saliou xaama xool beneen jaaykat nee naa tey dama leen di sonal ndax dañuy bañ wax ne affaire mu ngi jar te mu ngi jar ndax plage baa ngi wàccee nu ne Saliou Saliou nee naa la Mali boo ngi wàccee ñu ne suñu local laa lay tegal bisaab ku ko xamul dégg nga ko day wàccee day wàccee day wàcce tàngoor plage bii daal jaaykat yi li ñu ñëw ak coono jaaykat yi li ñuy ñëw def ci plage bi am na solo ndax boo ñëwee fii ci plage féexal sa xol pare jël ci jus local yi yooyu dafa neex nuy naa la sama mag na laa fekk nafi fi. na def nday daaw awoon ah, day awa ah, oh. <laughs> namm naa la ci loo ma fekk la ci plage bi nii. waaw nga fekk ma ci plage dama leen di xamal affaire nag jigéen ju la. mairie mairie mairie de la ville bii lay liggéeyee muy mairie Aliou Sall mu wàcc bu paree day ñëw fii. daan e dooleem daal di gont si fii ci Malibu bi. Mm-hmm. nuyu naa la bu baax a baax maa ngi lay fay. ñu fekk la fii tey yow vacances yi. lay dundee vacances di buy bisaab mhm. ak jinjeer mhm. ak soow mhm. ndax lépp dafa baax ci tàngaay bi moo tax ma ne naa ko defar di ko jaay waaw li may jotee jaaykat yi sànq ba tey laa mu ngi jar na fi waaw mu ngi def ndànk ndànk nag amul ndànk ndànk mu ngi jar mu ngi jar waa baax mu ngi jar mu ngi jar c'est sûr <laughs> mu ngi mag la di liggéeyee fee euh, mairie de la ville bu Aliou Sall macha mu ñëw fii bu mairie ba di ca li leen leen andiloon fii ci plage Malibu c'est seen première numéro émission les couleurs de l'été n'est naa leen fii lay vision ci Média 100 vacances de l'endroit jox dig Tu nag ci beneen numéro ci beneen plage ak beneen présentatrice ci Elvision Média bye bye.